jóge ci États-Unis d'Amérique navire bii di Rotterdam guddaay bi toll ci ñaari téeméeri mètre yu toftal juróom-benn fukk ak juróom-benn daal dina accosté ci mol bu port autonome bu Ndakaaru muy ñaareelu bateau de croisière bi nga xam ni moo gën a rëy ci àdduna bi ca biiram lu mat daanaka ñaari junniy nit mu di ñoo xam ni daal dinañ taamu Sénégal ngir jeexale fi seen voyage bi nga xam ni tàmbale nañ ko am na nëgën ni ñaari weer. on est parti de la jóge Floride lu tolloog juróom benn fukki fan ak nit euh, ñu daal di amal ab wërngël ci dendu Afrique benn jéego rek moo ñu dese mooy dem fële ca Cap Vert bu ko defee nag ñu daal di waajal ñibbi ca États-Unis. bëgg naa lool ci lu ma ñëw fii.

lii aussi day gën a xelal waa port ñu mën a développer la qualification du port vers des activités de plaisance et de tourisme mu di ab record boo xam ne def nañ ko ci atum 2023 di gën a rafetal xar kanamu Sénégal njiital l' agence sénégalaise de promotion touristique am ci contenté yi loolu li muy firndeer ñaar la bi ci njëkk mooy liggéey bi ñu waroon def fii ci port bi wax dëgg yàlla liggéey bu mucc ayib la mais ñaareel bi mooy wane ni tamit ñeme nañ Sénégal ñeme nañ Sénégal ci wàllu kaaraangeem ñeme nañ senegal ci réewu jàmm bi mu doon mais ñeme nañ senegal dam ci produit touristique yi muy proposé. nit ñi jóge ci ay réew yu fasantikoo ci àdduna bi fas yéene amal ay wisit ci ay sites touristiques fii ci Sénégal bokk na ci réserve bu Bandia waaye itam île de gore